di di génn parce que li ñu bëgg rek mooy bis bu nekk ñu xam lu lu xew. Mhm. et xam aussi nan lañ ci war a tax. dama gis nag ñu am luñ ci rax quoi ci xeex bi mooy jàpp ay nit di leen yóbbu gendarmerie ak yooyu est-ce que yaakaar nga loolu loolu loolu loolu loolu waroon nañ fa egg. par exemple ku mel ni Abdoulaye Mbaye Pekh nga xam ni waxul lu dul Touba. Euh, coronavirus ba même bu fa nekkee Serigne Touba dina ko fa génne ndax yaakaar nga kàddu yooyu mel noonu jar na ñu toll ci crise bu mel nii ñu naan dañ koy yóbbu gendarmerie pour wax lii wala lële. yaakaar nga ku mel ni Gana Messere ku mel ni Selbé Ndom est-ce que yaakaar nga loolu loolu luy defar la. ci moment bi ñu toll ñooñu nga tudd ñëpp Gana Messere Ablaye Mbaye Père euh, Selbé ak ñoom ñëpp maa ngi leen di maa ngi leen di nuyu euh, mais nag gis nga léegi dañoo toll ci jamono bu nga xam ne. médias yi dañoo gaaw médias yi dañoo gaaw ndax léegi médias yi nekkatul rajo rek nekkatul télévision médias yi réseaux sociaux yi la. Ah, kon xam nga ni kenn mënu ko arrêté. attends non non non waaw kenn ku nekk. Ah, ah. kenn ku nekk aussi sooy wax. ok sooy wax xam nga man sooy wax nga wax ci lu nga xam ne xam nga ko nga wax ci lu nga xam ne maîtriser nga ko. li nga gëm nag non li nga gëm beneen affaire la. Ah, ah. non li nga gëm beneen affaire la. Ah, man mii man mii ci ñi gëm ne. waaw ñi ci gëm ne réew mi ñu nekk. Mhm. muy Sénégal nañu fagaru de nañu fagaru nañu raxasu nañu diwu produit alcool euh, euh, hydroalcoolique nañu moytu ndaje yi nañu moytu lu ñu man parce que loolu moom lañu suñu diine sant nañu sabablu moytu mais man gëm naa ne kilifa diine yi moo xam kilifa diine yi nga xam ne dañu bokk ci. chrétien euh, ci chrétienté wala kilifa diine euh, jullit yi Sénégal itam réewu ñaan la. gëm naa ne ñun suñu wàll bopp tamit war nañuy sàkku ñaan ci sang yooyu ci nit ñu baax ñooñu pour ñu ñaanal ñu. parce que réew mu nekk ak aadaam. réew mu nekk aussi ak la nga xam ne moo fay moo fay réalité. donc nañu respecté euh, li médecin yi wax. li faj li nga xam ne ñooy ñooy nit ñi nga xam ne ñoo nekk si hôpitaux yi li ñu wax. mais nañu jàpp itam ne dañu nekk dëkk bu nga xam ne dëkku dëkku dëkku ñaan la man li ma gëm mooy dëkk bii nga xam ne mooy Sénégal nit yu baax ñu fi tëdd ñaan nañ fi ñaan yu nga xam ne mais gëm naa ne euh, fu jaar am jeexital ah. ci ni fi feebar bi di duggee ak ni mu fi ni fi ni fi mel loolu sama ngëm-ngëmu bopp mais loolu nag man la Modou Diagne ah, Fada. mais ça ne pas dire que. dama war a taxaw ci ngëm-ngëmam ñu. convoqué ko convoqué non nañu non xam nga man mbir mu nga xam ne ma daal feebar am na. non mais feebar am na ñu nekk ci benn benn ennemi ñëpp xam ni lii mooy ennemi. mais xam nga bu fekkee lan moo fi indi ay. pour yow ne Pape Ngagne yow dañ lay déglu. Mhm. nit ñi dañ lay déglu nit ñi dafa am fuñ la teg mhm. nga jël sa émission bi nga ne man Papa Ngagne Ndiaye maane ne feebar bi amul mais am nay sénégal yu nga xam dañ naan Papa Ngagne ko wax mhm. mën nañoo tekki seen laxasaay wala boog mën nañu wax ne mbir mi mbir mi amatul loolu lañu bañ ci moment bu nga xam ne ñépp dañoo war a maase bokk ndey bokk bàyyi laxasaayu ngir am comportement yi ñu war a am. d'accord ngir. mais mais monsieur le ministre nga lu ma bëgg ñu ànd si ah, loolu mën naa ko ànd ak yow maanaam Ablaye Mbaye Pekh wax ngam mais ñu génn ci voie autorisé ni ko li ngay wax kat bu ko waxati. mais da ko wax tey la lendemain ñu convoqué ko. mais loolu fan la am ci àddina. non defal ndànk que. au moins xanaa ku ku ku xamadi xamadi war nga xam. bu ma déggee xanaa am na lu mu tekk ci réew mi loo xam ne du wax lu fi yàq wala loo xam ne. nangu naa ne nangu naa ne Ablaye Mbaye Pekh am na lu mu tekk ci réew mi sama xarit bu baax la yaa ngi dégg mais dama jàpp ne yoon moom ñëpp la fi nekkal tey tamit woote bi ñu leen woo yaakaar naa ne liñ ci doon wut rek mooy dissuader dissuader maanaam bañ ñeneen def ko walla bañ ñeneen jàpp ne mbir mi ñi ko ñenn di waxe noonu la tëddee mais yaakaar naa bu fekkonte ne dañu leen a woo. pour sonal leen pour bunduxataal leen pour euh, def leen def leen yaakaar naa ne woote yi du demee du demee noonu mais nag lu demee nii toll fii nga xam ne c'est très sérieux et que président de la république wax na ko guerre la ñuy def mhm. beneen président wax na ko ne guerre la ñuy def mais guerre nag da ngay bokk ci ñi nga xam ne ñoom ñooy xeex mbir mi mais waroo wax lu nga xam ne mun na décourager soldat bu nga xam ne dafa nekk ci xeex bi waaw d'accord xam nga ku guerre moom boo ko waxee ku nekk ak sa arme ku nekk sa arme mën na nekk sa ngëm mën na nekk ki nga yaakaar mën na nekk leneen ak leneen mais nañu bàyyi nit ñi ñu wax li ñu xalaat wax li ñu yaakaar terewul aussi bu fekkente ni da nga nañu fexe ñoom ba communication bi ñuy def nekk communication bu gën a kawe li ñuy wax fake news loolu mooy li nga xam mooy jëriñ askan mais loolu dafa jafe dafa jafe dafa jafe dafa jafe nii tey ak réseaux sociaux si si si mooy ñu am gis nga non non non dafa jafe ak réseaux yi ngay wax lu gën a kawe euh, fake news xam nga lu ñu war a def fexe ba fake news du am je crois que loolu d'abord loolu mënuñ ci dara. waaw dama ne loolu loolu loolu boo boo xoolee. waaw dama ne loolu moom. a a mën a am waxuma la feneen. loolu moom jéem ko a moo gën nga ne nañu fexe ba yéegal communication bi mën a ba mën a nëbb ba mën a nëbb mais def ci wàllu communication euh, jafe na jafe na romb parce que te yaakaar naa ne mbir mi moom la ñuy waxtaanee fépp mbir mi moom la ñuy waxtaanee ci ci ci barab yépp mais loolu nag dafa am ñu porte cette communication positive muy président de la république muy ministère de la santé muy euh, docteur yi nga xam ne ak médecins yi nga xam ne ñoo nekk ci gox yeeg gox euh, gox goxaan yi ak itamit euh, média yi nga xam ne. surtout waaw d'accord ah, surtout ak média yi nga xam ne ñoom tamit xaaruñu kenn woo leen ci mais parce que c'est leur rôle. voilà mais je profite de l'occasion pour féliciter pour féliciter Youssou Ndour taxawaay bi nga xam ne taxaw na ko si loolu aussi c'est très important je félicite Bougane je mhm. félicite tous les patrons nga xam ne comprendre ne mbir du mbirum président Macky Sall. Mhm. du mbirum président Abdoulaye Wade du mbirum euh, Modou Diagne Fada mbirum Sénégal ñépp la. ke kenn ku nekk ak fànn ba nga féete ba ci yow émission bi ngay def ni tey jàpp naa ne jàpp ci xeex bi la